maa ngi laaj ana ñu sopp Seydil Hadji Malick maa ngi dugg ci gàmm gi alaaji baaba alaaji baaba alaaji ma ci Seydil Hadji Malick laa jëm dama bëgg nga wax ma foo dugg baax na ma waxtaane Seydil Hadji Malick ñu pare dugg ci borom bis bi dugg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam كاريك دارا مانا رملو كومبا تشافا وادو فرما جوب تفلين ما غيس ري قد شفت في سيره المختار الشافعنا حاج بابا دي كومبا لكن الفين اني قد سوختا قد شفت في سيره المختار الشافعنا قد سوختا في سيره المختار الشافعنا قد شفت في سيره المختار الشافعنا ما يوجل الجوهر اليقطع ترى قد سوخت في سيرة سيرة المختار شافعنا قد شفت في سيرة المختار شافعنا بايو سيرين بابا كر بايو علاج منصور قد شفت في سيرة المختار شافعنا وافانو كان صف سير الحاج مالك جسم لنا ما يعجل الجوهر اليقوط دررا قد سوغت في سيرة المختار شافعنا قد شفت في سيرة المختار شافعنا سيرين بابا كرسي بكرك ترمان آه أرم لو كم بتشا برون وإنني قد كنت من أهل النار ومسكني بها لداري أندري اثنان وأربعون قل ذاك العدد لنمرة التاري إذا رمت المرد قد تبت في سورة المختار شافعنا سرج بابكر قال دفا جيكي جيكي لير خلاص الذهب بي بسيد الحاج مالك لير كو آبسد خمني دال سيد الحاج مالك مي li mu def nii kat musuma ko gis yim na ku weex waaye yim na ku ñuul mu ne xat suxta قد تختفي سيرة المختار الشافعنا سيرين بابا كرسني سير الحاج مالك defaral nga nu téere boo xamante ni tagg nga ci koo xamante ni ëllëg moom la nu yaakaar mu ràmmuñu maa yox maa yujulul jawharal yaquta wa dirara ala jaga xolam mu ni maa yuxsilul jawharal yaquta nee na téere bii nga ñu andil ñun xooluñu wurus yaqut xooluñ durru ndax téere bi mate na ko abrata kullu janaanin dëhbukal jafala abrata kullu janaanin dëhbukal jafala abrata kullu janaanin dëhbukal jafala abrata kullu janaanin dëhbukal jafala abrata kullu janaanin dëhbukal jafala ani soppi Seydi El Hadji Malick borom bal yoonu sunna bi abrata kullu janaanin walla stataalamu fii lisaanikal waraa. xoolal Serigne Hadj Malick Serigne Babacar Sy ni ana ñu bëgg Seydil Hadji Malick Mam Maodo. ana ñu ko sopp. Mam Maodo. ana ñu ko bëgg Aliou Soufi. Mam Maodo. Atahiyu. Mam Maodo. Hamidou. mais ku sopp bakkanam boromam arab loo ko bàccaam jugal taxaw ñu màggal Maodo jaaraama jaaraama jaaraama jaaraama mam Maodo ganela amrat kullu jannanin duhbukal jasalla abrat kullu jananin duhbukal jafala wala statalamu fi ihsanika al-nara xol Sëriñ Babacar Si nee na ko wan nga saxoo nga loo xamante ni ñun min nan ko ci yow te xola sa jëf jii ngay jëf rafet bi mu rafet teey ko te fekk nan ko ci yow mooy na alaaj ko ñu waxoon fële di ko ruttan nufuusa li diinillahi tarbiyatan iblisu mabtasamat minhul makayi hada anfusan dallat hada anfusan dallat alaaj baaba li nga wax dégg هدى أنفس ضلت عن الرشد فهتدت هدى أنفس ضلت هدى الأنفس ضلت عن الرشد فهتدت موي جالين mooy wax Seydi El Hadji Malick xola borom Ibris moo إذا لم تكن له فما هو إلا في ليالي الهوى يسري xola borom Ibris ne sëriñ dafa am lu nu koy xamee muy lan mooy na ngay fexe ba bu nu la xoolee ah. gis ci yow yàlla ah, borom Ibnu Asira ko jàngal nee na sëriñ boo ko nee jàq dangay gis ci moom jëmmi yàlla ci mooy li sëriñ wax léegi di dana yegg ci jaamu yàlla foo xamante ni boo ko xoolee yàlla la lay jox du melokaan de mais jëfin ba mu ni kon sëriñ dafa war a nekk koo xamante ni boo ko tooñee dalay lay baal sëriñ dafa war a nekk koo xam ni bu so boo soxlaa dem ci moom du la ni bàyyil ba suba sëriñ dafay nekk koo xamante ni day bëgg ci nit ñi di ko tooñ sëriñ dafay nekk koo xamante ni day xam xam-xamu zaahir xam-xam bu xam-xam baatil waaye taaliba bu ko topp jub moo tax hada anfusun dal hada anfusun dallat sëriñ yow Seydil Haaji Malick al anfusu ba sànku anil rushdi fahtadat wuñu ndax xam na fi ñuy teg seen tànk fa ana ñu sopp Seydi Hadji Malick fa saamat fa saamat njaboot Seydi Hadji Malick Seydi Hadji Malick yar na leen ba ñoom bokkul ci seen emploi du temps weeru koor jot ñuy tappale dañuy woor waxaamat nee na xoola njabootu Maodo Maodo yar na leen ba fu julli jotee lu mu xat xat xat dana nu ko xajal ko laylatu tahjudi kon ku julliwul yaa boole sa bopp ci njabootu Maodo waaye Maodo boolewul ci fasarat zawayahu fasarat zawayahu fasarat zawayahu boo demee Périssia fekk fa sawi si xaj fasarat zawayahu daa fa fekk sawi si xaj Malik fasarat zawayahu boo demee دمي رفنا كيما نكرافو فيك زوزي فسارة زواياه زواياه زواياه يا ممسي الحاج مالك في قراها جميعها دك بودم أقلو مصوري سوري دافا فيك زوية بو خمنتني سير الحاج مالك ميلان بفعوني وكاين وسجدي منو خلا بودم يا زوية yaa ngi fekk ña fa nekk xola جل لنا فنك الله أكبر ليس اسم الله لمن حمده ليس الله أكبر كيف خلا بنو جباري بابا آه. أبو لير لن لن لن لن لن لن سني لمحمد فصار زواياه في قلها جميعها ملان بفوج ركعين وسجد آه، آه، لأسواتهم boo demee ca zawiya ca jàkka ya yaa ngi dégg seen baat ya li aswaati yi loo teg fii ci bis bu ne wa laylatin ak guddi gu ne dawiyun moo xam la daa nee na dañuy sax kulli wa mimma razaqnahum yunfiquna jërëjëf nga dina isa nahnu inna nawuzu min ta'allum ah na xol bu nu toogee ca jotaay ya damay ñaan mbooloo mi ku fi toog na wax lii te mooy taalibe cheikh lu ñuy wax seen carte li nga xam ni moom la leen di xàmmee wi Serigne Aline Gueye nee na jotaay yanuy toog ca biir sëwye ba xam nga looy def waaw waaw ñoom ñëpp jël nañ seen kurus te naan fay seen ñun ubbi seen faatiha bu nu paree lu nu cay teg baaba astaghfirullah la ilaha illa huwa la ilaha اله الا هو الحي القيوم الصابر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الصابر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الصابر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم خلا بنو جباري دفنا سين فنويري استغفر الله العظيم الذي طالب شيخ صلي صلاة فاتح الخمسين آه. على النبي المصطفى يسينا yaa ko wax de nee na bu pare xam nga lu def te mooy wala nii la ñuy def seen course nii lii ñaata la nee leen ma cinquante cinquante ci salaatul fatiha naan toog اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق القتل ما سبق نسرق بيقي والله إلى ذلك المستقيم وعلى علي حق قدري ومقدار عظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق القتل ما سبق نسرق بيقي والله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم وهللن مئة تهليلا تحو جزاء منيا جليلا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 محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل وسلم على عين رحمة الربانية واليقوطة المتحققة القائتة بمركز الفوم والمال ونور الأكوان المتكونة العالمي صاحب الأقربان البرق الأصلي يغني أربعي مالات لكل متعرض من البهور والأواني ونور كلامي الذي ملت به كونك في أمانة المكان اللهم صل وسلم على عين حق التي تتجلى منها قرص الحقائق عين المعرفة قم صراطك من الصم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق كنز العظم إفادتك منك إليك إخاتة النور المتسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بشيء nangu mbokk yi xool leen lii. amiin yaa rabbi lii. ah. lii nii. am ñu taxaw fële. am ñu taxaw fële. ah maa la war a fekk si de jërëjëf yaay. naam xoola am ñu taxaw fële. ah. naa leen lii ngeen di def dafa xaraam. yonent bi bàyyi ko fi bi daala xoolat bu leen kenn bàyyi loo tariqa bi. sax leen ci. mooy waaja de. mooy rey bi de. wallaay ku si jàpp raw. ناصر الحق حق بالحق طلعت الحق يتيم ويتاريخ شهد Musidata be aljanadi Yebu sayida mujidini Yebu sayida Loxo ci kaw Kula may jabar Muta be aljanadi Akanda yak bay ci dina Fonkanda yak bay ci dina تعلق مع خدجة بن سيامة وسليا يا إلهي يا يا يا أنا محمد أنا المختار في القدام تعزم والتسع حين تذكره حب القرآن واس هذا الليل الكرم وسلميا يا إلهي وسيا أبدا على محمد على المختار القدام إذا نحن جئنا نوه من تعلم سريا للجينة بنو مسانا نيو تسير الحاج مالك pour sàkku خم خم wa jallaawu soxlaan xoolal mu ni dana nu ko fekk mu nekk ku pare di ku nooy lay naa la bi fajiri di ku disponible moom Seydil Hadji Malick wa man lii du def li gars yi di def nan boo soxlaa dara faaw nga joxe dara wa man lii Maodo moom pare na wa man lii nee na nag ku man lii be waso taasin ci oustaz boo xamante ni. yu rabbi murida. dafay yar taalibe moom Seydi El Hadji Malick. bilaa xalwatin. te du la dugal xalwa. bal himmatin. ci yitte la koy defee moom Maodo. misla Ahmad ba mel ni ba mel ni borom tariqa bi di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane. wa man lii. nee na ku man lii. بمثل الفقه كونو جانغال فقه والنحو دينو جانغال نحو منطق كلامنا لفظ مفيد كالسكن بيان اسم وفعل ثم حرف كلمة مانحة كلمة وكلمة بديع بمشهد والنداء ومسند للمسي تمييز حسن وملي بنجل بنجل ومرسل نانكم مامي سرين مباي سي منصور خالص دلال تيد جان يالنا في ياغ يوم دا يا وصال def leen ni ñu màggal maami sëriñ Mansour Sy Djamil yow man def leen ni ñu màggal Serigne Maodo si Dabakh yow Maodo yaa woo sol siratal bari mi xawaadaay xola xaj njaga sànq dafa am xasida bu mu way xasida bi mu way xasida bi mu way ci Cheikh laay tëje ci yonent bi laa jëm xasida bi mu way njaga soxla dafa am xasida boo way léegi dafa am xasida boo way waaw demal demal demal demal demal demal demal gars yi dinañ ko teg dafa am xasida bu mu way léegi maam si Ahmad Bamba moo ko bind def ko ci yonent bi daf ko way mu neex lool waaye xasida boobu bu ma sañoon nit ñi xam lan la ci maam si Ahmad Bamba wax yonent bi pour nga xam cofil gi mu ko ëmbal xoola xaaj xaaj Ibrahim xaaj euh, Ousmane xasida boobu laa bëgg nga wa tegal ma ko ndànk-ndànk ma firi ko لم يبدو تعال ميكروبي لم يبدو الله borom rajo ubbil ko rajo bi nga ne lan lam yabdu lam yabdu mislal mustafa muhammadin xola ci temps bu ndaw rek ci temps bu ndaw lam yabdu lam yabdu mislal mustafa muhammadin osmaan dama bëgg fii ñi toog xam sunu magi réew mi ni nu bëggee Sayyiduna nga ne lan lam yabdu lam yabdu mislal Mustafa Muhammadin Ousmane jugal nga ne lan maa ngi laaj ndax jotaay bi am na ñu fi sopp Seexil Xaddiim lam yabdu mislu Mustafa Muhammadin Baye Bass ak Baara maam yi dan nag Cheikh Mbackiyu ana ñu ko sopp moom Cheikh El Khadim lam yabdu mislu Mustafa muhammadin maa ngi ñaan jotaay bi ñu sopp seexil xadim nanu jug taxaw ma wax leen li maam Cheikh Ahmad Bamba lam yabdu mislal Mustafa muhammadin ana ñu sopp seexil xadim góor gi tawloo Mustafa caadloo Murtada jaar na man war jaar na yóbbu lam yabdu mislal Mustafa muhammadin maam Cheikh Ahmad Bamba ne lam yabdu mislal Mustafa muhammadin lam yabdu mislal Mustafa muhammadin xoola Cheikh Ahmad Bamba ne lam yabdu nee na Mustafa mislal Moustapha ku nuy melale Seydouna Muhammad Muhammad yi mooy turam. sirran wa jaaran fil baraya samadi. moo xam ci lu nëbbu wala ci li feeñ Cheikh Ahmad Bamba ne sa sëriñ ba ne dootoo ko gisati ci àdduna. madalana lislaam. xoola nee yonent bi madalana moo nu andil lan la ñu mu ne al wal kufra maa sama bamba ne wal kufra yiifër maxaa fi dàq wa bi nasiyatin li kulli samaa xoola ci nen la ko defee nag ci nasiha ci dugal leen ci diine ji te xoola jaamaarloowul ak ñoom donte la ja na yu mu jaamaarloog moom mii ci ëpp nee na ci nasiha la leen dugal ku sopp seewul aadem ne ah, ah. yaquudu bi zaahiri wal bés ak baara ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy wommat ci biir ak ci biti ataa walillahi fi kulli zaman Seexil Xadim ne fi mu may wommatee moo xam ci lu nëbb ak ci li feeñ pour may topp yàlla محمد صلى الله عليه وسلم عن الغيوب أذهبت نانا اللي جايل باي يوم ينتمي صلى الله عليه وسلم دقنا شمال لغا خمسة لما يدقره مatan وسهوا وهبت نانا تنجم لما تك تنجم لولير كبان باي سرين فالو نانا لي بانا كون المصطفى رئيسا الخدم نانا لي بانا كون المصطفى رئيسا لبانا كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا لكل من قد فضل رؤوسا كل قدمه فوق كل رقبة وصف باي سرين ساليو غورغي دمون جيت جار ما يوم تاولو مصطفى شارلو مرتد سنت مبكى سنت مبكى كل قدمه فوق كل رقبة خلا شيخ القديم نه moom Cheikh Khadim dafa xëy bis jël xalimaam si sëriñ bi xolo déet bul defar nii man waay déedéet déedéet déedéet déedéet sëriñ bi dama lay wax rek mag ñi ni nu bëggee Seyduna Muhammad guddi gii am na ñoo xam ne dépassé nañ ci seen alal Seexil Xadim ne seen alal jooju ñu dépassé ñoom ñu ngi telloo daraja ak ka teewoon xare Badar wala xare Uxay wala xare Xunayni مولده معظم مبارك محترم تعظيمه ينقسم على ذوي التقدم تعظيمه بسنة يخودنا للجنة بازدهاد المنة بمخلص بمعزم فمن يعزم مولدا نبينا باب الهدى فلا يحاسم الغدا فكل من أنفق في مولدي مشرفي مالا بغير شرفي ولو بقدر الدرهم فإنه كمن حدر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونزر كنا خير الورى المسرفين كسب سيدنا إيه. محمد خلا خلا خلا ما نجي واجه جوخي كادوغي يا سيد الرسل الكرام وتاجهم ما نجي واجه جوخي كادوغي تا واخونا سي نيت لاي سيدلي سما وقتان داما ني داماي وقتان يونتبي وقتان مودو وقتان شيخ أبا العباس أبا العباس يا كنز المالي فلا يجيخ باي ميسا تبارك الله مملي لي وقت وينو جوخن تون مونجي جيجي أبا العباس أبا العباس يا كنز المالي خلا سيرين مودوسي سيرين مودوسي دباخ مودو كوتي كيوبي di waxtaane borom guddi gi bàyyi may mu ni abal abbaas yi mi nga xamante ni yow cheikh bi kanam yi ñëkkee yaa leen billilaat yaay bàyyu aji ñëkki ji kanam yi xola yaa kënsal maali yow mi nga xam ni say magasin yu kawe la abal abbaas yaa kënsal maali wa yaa wa yaa faqra zamani bila misaali mu ne xola yow mi nga xamante ni yow yaay tiitaruwaayu jamono bila misaali te amoo ñaareel waya badran yusiqu bi kulli xuturi yaay weer wi nga xamante ni sa ceeñeer mooy leeral adduna yu niirul kawna yahdi lil jalali sa leer mooy leeral adduna bi te yaay gindi mbindeef yi yóbbu leen ci yàlla fa hada qalbu abdun zibtirabi Serigne Maodo nee na kii wax nii borom xol boo xamante ni la dafa tiir faada xal bu abdu jiraarin nee na xolub xolub jaam la boo xamante ni dafa jàq rek biinil nal falaaxa bilaa jidaali Alaaji Ousmane jërëjëf damay joxe kàddu gi ndax kat xam nga